Euh, asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye info TV euh, ñi ngi ak le coach Mame Less mu nekk mun naa ni ndaanaanu làmb ni mu koy faral di waxee mu nekk ndaanaan bu làqu euh, ñu war a def ak moom benn briefing ci journée bi nga xam te ne Assane Ndiaye amaloon na ko démb yaakaar naa ne mu doon combat am solo te comme ni may faral di ko waxee rek Mame Less dafa doon koo xam te ne bëriwul li muy génn si média à chaque fois dañu accordé le faveur donc coach ñu nuyu la ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga présenté ak mbokk internet. salaamaaleykum salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa monde entier. salaamaaleykum waa Guédiawaye info euh, ci déplacement bi ngeen déplacé chaque fois ci ay chronique ak ay détails yoo xam ne daanaka yàlla moo ñu boole ndax ñun chaque fois rek comme li sama rakk di wax ak li may wax sama rakk yi naa yàlla nañ yàlla musal bañ bañ wax lu ñuy xeebee waaw ñoo ngi gërëm ñëpp di nuyu sama waa écrit di nuyu waa parcelle mbooloo man nee naa la Guédiawaye la dëkk mais damaa gëm waa parcelle ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu Asbekaay du nuyu aada leen gërëm di leen sant. waaw kon su loolu xale di njëkkee di xale champion. di ndaanaan ndax ñun ñi bi ñuy dem drapeau chef de l' moom lañu yóbboon 100 kilo yi. Franc nekk capitaine d' bi. Euh, Bébé Diène ku ko xam-xam ne ndaanaan la ku ko xam-xam ne champion la ku ko xam-xam ne ku mën a bëri la koo ko xam-xam ne gone gu ñeme coono la gone gu ñeme lu metti la. Euh, Tyson gin gi néew nag peut-être mën nañu wax ne mag la mën nañu wax ne mag mu mën a bëri la mais xam nga âge bi aussi da ciy xaw a joué benn instant ba nga xam ne euh, combat bi lu mu gënoon a yàgg gën metti ci moom. ndax Bébé Diène Bébé Diène xale la te bëri bi ci moom nekkul ci Tyson gin gi néew ndax Tyson gi néew bu combat bi gënoon yàgg tànkam yi day day lâché ndax pois bi nekk ci kaw yàlla da ko def ne Bébé Diène xaaru ko fa te Bébé Diène da koo bëre bëre bu rëy lu Tyson gin gineew mës ta am ci combat la la Bébé Diène def ba daan Tyson gin gineew Tyson gin gineew kenn mësu koo daane nii ci làmb waaw Tyson gin gineew doomu aadama mësu koo daane ni ko Bébé Diène daane ndax Bébé Diène sample ndax Bébé li ma xalaatoon ni mu koy def sax mooy jongale boobu muy dugal dugal loos bi jongale ko def ko prise par derrière loolu dañoo xalaat mais dafa génn génne bopp bi Euh, taf bi gën a gaaw mu taf ko plaqué ko mu toog benn yoon looloo gën a gaaw. waaw coach am na solo mu doon xale boo xam te ne ndaanaan la. ndaanaan la la liste. si si si waaw bu loolu weesoo ñu dem ci diggante Petit Niang ak Gakou numéro 2. Euh, euh, Petit Niang champion la mais Gakou 2 da ndaanaanu làmb dafa dafa nekk koo xam ne maanaam boo xoolee ci combat bi mu jugee nii sax préparation daanaka lu ci ëpp moog Balla Gaye ko doon def. parce que boko sété sama sama gis-gis man ah peut-être nak comme liñ wax rek lamb mom boy wax rek waxal lo xam manam gis naa ko mu and ak Balla gay ci préparation Balla gay modlo muy ndaanaanu lamb aussi mom Gakou de gis nga Gakou de Petit Niang na indi volume indi na doole mais day am combat yo xamne da ngay wara bala nga yok doole wala nga yok volume da nga wara xol sa adversaire te signature ba xool état bi mu toll ba nga xam ne yow lu bëri bi yàgg yàgg yàgg nga mën a maintenir sa kooful mën a téye li nga xam ne moom la sa adversaire indi maanaam bi bi ko gakku bi ko Petit di jongale gakku doo da ko bàyyi ak yaramam bàyyi ba nga xam ne fi mu toll nii Petit Niang ngi waaj kii da koo wicc mbotu ko sax loolu du mbot da koo wicc weñ ko peese ko gakku doo euh, Petit toog mu dem yoonam parce que loolu mooy wane ne ndaanaan la parce que nit ki ñuy jongale ñaari yoon buñ la jongale ñaari dóor ci mais Gackou da koo bàyyi ba mu jongale mu bàyyi ko gerte mu ubbi tànk yi xam ne fa mu koy wàccee fa la fa lay sap fa lay samp pied droit am bi Petit Niang wàccee Gackou da koo peese rek biij ko mu toog. waaw loolu aussi xaw a bett ñu bëri parce que bu ñu xoolee Petit Niang ak gabar gi mu am ñu bëri foog ñu noonu Gackou 2 mën ko daane ci anam boobu. xam nga mën ngaa am volume te doo doole mën ngaa am doole aussi boole koog bi mais gis nga Gackou nag Gackou dafa oos maanaam mbër mu teñe la mbër mu wow kong la gis nga bi koy caatu yoof di daal caatu yoon da ko waaxu rek daan ko subitement mais làmb moo demee noonu jour boobu tam ñu naan Gackou doo cuunal te Gackou doo champion la ku ko xam-xam ne champion la ko gisee ak yaramam ak état ni mel rek nga xam ne champion la. waaw kon suñu dem aussi ci combat spécial bi diggante Mama Lamine ak Boursine ñu gis dem Mama Lamine ni mu ñëwee abordé combat bi avec la manière bu mujj am ndam tey combat bu nan nga ñu koy daa ñëw xaw a négliger tuuti Mama Lamine te Mama Lamine da di ndaanaan. ndax defet bañ ko daan si ay mbokk bool boolam daan ko moo tax Mama Lamine ñëw na tey damay jëfru ci kaw Buur siin Buur Sine nag li ko ndax mooy da doon der derlu te der derlu ci combat amul combat calcul la ak mental ak ku gën a lusut ndax dóor naa fils de balle mu tërëf nga jaw jekkali ko mu daanoo nga yaakaar ne combat boo ñëwati noon la mel da ngay nax sa bopp yaa ngi dégg parce que combat dafa am calcul am lecture Mama Lamine man leer na ma ne Max Mbargane xeexloowu ko woon leer na ma ne waa waa waa waa Lansar xeexloo wuñ ko waaye gis nga xale mooy dem ba benn instant boo xam ne yaram bi day jëfru yaa ngi dégg mu ne xaaral comme sama moroomu naataangoolo naa ko waaxu benn yoon corriger ko yónnee koy rafaal daw peese tànk bi noo di ko mu toog combat ba jeex tàkk parce que la Lamine dafa ñëw indi safara indi saytaane parce que bu nekkoon foofu doon xaar buur siin ana man ana yow kurpañ yi ñëw xam nga balaa mbàccum gerte may ñëw mu ne xaaral ma jàpp tànk bi ko benn yoon mu mu dem yoonam no Teller, te leer na mané fallu muy entraîneur am sant ko loolu mais xam nga mom lima wax ci lamb lamb lo meunt nek kankam kamba ci lamb bis boy daan ak ciuna ngay do yalla dafa def loolu ci lamb te lamb lima la wax ci lamb rek meun nga sa natango écrit meun na daan ki ngay beurel nga yakana yow bo dang koy yow jekali la lolo dal bursin Mama Lamine daa ñëw ko corriger ko yónnee koy rafaal ba mu xaw naa tërëf te nit ñi seetluñ ko combat da ngay seetlu combat yi ndax bu la nit ñee laaj nga wax ci loo xam bi mu dawee peese ko nattaat ko chargé koy chargé koy ku ba ma ba buur si di sigg daw di daw daw di kii la la maama la muy wàcc ndànk jël tànk bi nooju ko mu toog. waaw kon loolu ci naa soog ak double mhm. nekk xale boo naa révélation li ci làmb ñu woon a mhm. ban jàngat Euh, xam nga double moteur sax daaw amoon na benn combat bu mu ñàkk diggante moom am Balla euh, combat boobu mu ñàkk noonu moo ko def mbër ci combat bi maanaam def ko mu xaw a teey tuuti ndax dañ na ko naaru sokaas ñi koy digal ñëpp loolu lañ ko digal nanga teey ndax naaru sokaas boo xoolee am na génération bu mel ne génération double moteur bu daan waaj a yéeg bu njëkk ñoom ñëpp naaru sokaas freiné leen loolu tax sax combat bi mu xaw a teey tuuti xaw a diib song na fa ñaari song yoo xam ne song aveuglement la dóor na fa dóor coup boo coup duraat boo xam ne dóor aveuglement la ko dóor gis nga mbër deel teey booy bëre def di def ndànk am am repère ci combat bi am lecture combat bi xam aussi temps bi des ci combat bi dafa am solo ci mbër looloo tax entraîneur baax ci mbër entraîneur dafay éduquer mbërëm ci préparation ba ca école ba préparation bu ñuy dem làmb préparation ci biir làmb bi muy calculer waala temps bi muy bëre moo tax bi combat bi ñëwee boo booy booy booy booy rëbës bi double moteur da koo déglu tuuti parce que yoon la mu déglu ko xaar naaru sokaas naan day jéem a xeex indi ko tuuti xeex mais xeex balaa ngay xeex day jàpp ba dëgër chaque fois mais naaru sokaas loxo góosam bi mu jàpp moom bi muy bi muy chargé coup ak loxo droite bi double moteur dafa def début flexion double moteur mbojj ko sax dafa def début flexion naaru sokaas moo dégg dé déséquilibré samp mujj bàyyi loxoom bi mu jàppoon ci ngembali pour mën koo samp farsawaay sëf ko dooleem ji mu tëdd noonu la combat bi demee parce que bi muy jàpp ci loxo droitam mënoon naa bañ a xeex jéem a jàpp ba dëgër wala mu daw naax wala mu daw génnewaat loxo góos bi fi mu jàpp naax ma moteur xaar ko mu ñëw parce que xale booy bëreek moom te nga am expérience si làmb da nga ko war a xaar tuuti déglu ko tuuti bu ñu demee ba bëre bi nar a sori ci biir dindi sa loxo droite naax ko parce que da koo naaxul fa mu naax ci fa mu fa mu jàpp ci ngembam da foofu naax moo doon yoon foofu da ko waroon naax te jël boppam dengeñ booy bi parce que xale la am na doole liggéey na doole indi na doole moo taxoon bi ma journaliste si laajee ma ne leen man bu ma doon jox favori double moto laay jox favori te yàlla baax na ba yàlla ak ñuy suturaal li ñuy génn ci internet yi ñu ko génn ci journal yàlla mu ngi ci suturaal di ñu musal double moteur daal daan na naar sokaas jël bu set wicci yaakaar naa ne lépp lu ñuy wax daal mooy di bañ a rek pour nit ñi diñ ci xeeb di bañ a wax loo xam ne nit ñi dañ naan diw dañoo bëgg ku leen gis wala noo dañoo xam làmb di dund làmb bañ làmb yàqu waaw kenn ku ne nag lay nit ki waxal ci say erreur ak ci say détail fexeel ba bu lëgatee la lay nit ki wax nga jariñoo ci parce que loolu tax nit ñi wax parce que boo laajoon tey keneen tamit dana wax ne ah diw kat ni mu bëree ni mu bëree ni mu bëree daanaka boo xoolee samay wax ak waxam day nekk même soosu waaw. ci kaw Mhm. da mhm. mhm. xam nga entraînement aussi sérieux da cee baax parce que nee naa la nouvelle génération bii di ñëw coono yi ñuy teg seen yaram entraînement bu sérieux bi ñuy teg seen yaram gëm-gëm gi ñu gëm boo xoolee xale yi génération bi même génération bu tolloog say morom rek yaa ngi entraîné pour jéem a pour jéema dem ci kanam déggoo ma de Ada dama ne la génération bu ndaw bii génération bi yëpp kenn ku ne yaa ngi jéem a entraîné di jéem a yokk doole joo xam ne pour sa moroomu naw la ban laa toroxal ci làmb ci waaw mais naaru sokaas moom euh, préparation bi mu war a préparé bi mu ñëwee ci combat bi sax xaw naa changé tuuti mais changement bi bariwul parce que nit ki aussi boo koy waxal da nga koy wax lu nekk xaw naa changé am na yokk na tuuti mais kaw la yokk mais yokkul suuf parce que endurance bu baax am résistance dëgër bi ko bi ko bi booy bi ko booy bi ko booy bi su bi ko booy bi bi jël tànk bi waroon naa am beneen réaction boo xam ne fi mu toll nii ci doole double moteur la koy daane. waaye yàlla def ne combat comme ni ma la rek saa booy daanu erreur bu ndaw lay daan booy daanu la nga dul xalaat moo lay daan looloo lay daan te booy daanu cuuna ngay doon. Mhm. Euh, maa ngi gërëm suma waa famille comme d'habitude di gërëm suma rakk Cheikh parce que nee naa la Cheikh mënuma ñàkk di ko gërëm ndax suma rakk la moo topp ci man euh, di gërëm suma frère laay Diop depuis France di gërëm seen ba seen ba depuis Baal parce que nit ki comme li ma la rek bu la bëggalee boppam fu fu mu toll di la woo téléphone fu mu toll yëgoog yow fu mu toll di di la safoo di la saafoo bu ñëwee Sénégal balaa moo def dara gis la kooku ku sant la kooku ku la bëgg la di gërëm sama xarit Omar Mbow bu nekk Lyon di gërëm Ndiaga Diagne sama frère depuis Italie di gërëm Malick parce que aussi boo nekk ak say doomu baay ngeen nekk ci kër gi yàlla bindoo la nga am nattu ci ay affaire làmb booy tudd boo tudd kii kii na la da tudd boo tudd kële kële na da ma war tudd ci ñun ñëpp benn lañ on est dans une même famille te it yàlla neen yàlla defal jàmb yéen ñëpp di gërëm waa Guédiawaye info di gërëm encore suma waa écurie waa Parcelles mbooloo parce que dama gëm waa Parcelles di leen ñaanal aussi écrit ba ñoom ñëpp yàlla defal leen ku ci amul combat yàlla defal na combat ku ci am combat tamit yàlla na la yàlla may ndam la ma waxoon rek laa waxaat parce que man dama am gëm-gëm daaw maa jëloon quatrième ren bëgg naa jël pay jërëjëf Ada wa